Cheikh Abdoulaye Dièye mi nga xamni tay mom mo waral conférence bi man sama kilifa la moom moo yar moma duggal école moma ma defal lépp donc bo woté conférence doomam woté ko dama ci war teew Cheikh Abdoulaye Dièye na dafa fekk ni c'était rare nga gis sénégalais dans le monde contemporain bu def politique parce que euh, xam nga euh, am na ku ko wax sax gannaaw Serigne Cheikh Tidiane moom moo fi jëk def mais ñom ñi leen jitu ñom Thierno souleyman Baal ñoo ñëpp dañ daan def politique donc politique ak religion dafa and parce que politique fay déterminer religion day déterminer comportement te comportement boka amulé mais mënoo def politique bu tagu si yoon. lam nu jàngaloon mooy boole diine ak boole kaak adina di jaamu yalla ba melna suba ngay faatu di liggéey ba melna do doo dee dal mo daal en résumé waaw loolu dal mom la ñu sentiroon ci Cheikh ablaye Dièye lolou dund tam aussi donc liggéey na. ci wàllu diine joxe na fi ay wérdu maaxuus maaxuusul xafis maaxuusul kamil jaamu na yàlla dimbali na ay ndaw ci wàllu jàng tubaab ñu jàng ba daayira ba sax dama ne ba tudd daayira bak ndax ku fa ñëw am bak maanaam ku ba sëñ Babacar bi du mu bàyyi ma fen xale yi nekk sañ ci ba yëpp laa nga ba ñoom ñëpp dañ dem ba tudd daayira ba daayira bak ndax ku fa ñëw am bak nax encadrement bi lay defal ci wàllu jàng tubaab du tee nga lal ay tasawul saxaar ay téere pour jàng sa diine sa farlul ay ni pour man jublu sa borom du la teetam nga nekk un homme d'action et de développement. moom mission sur terre yaakaaroon defar àddina la gannaaw ga xam ne dafay dafay itam defar àddina mooy defar defar itam sa réew euh, moom euh, daf doon wax ay création part euh, école du parti yooyu waaye bi mu sampee parti am nag xam na ni foofu jaamu yàlla ju mat sëkk la mu ci woo nit ñi dem ci sëñ Abdou Khader sëñ Abdou Khader. avaliser que ni ko yaa ngee doogaa liggéey Touba dem ci seigne sargal ka euh, euh, geureum mu euh, religion et politique ndax tout monde dans tout est politique dans la vie muni ki amé jigen bi amé keureum samp keureum amé njabotam politique ci na xale yi nangu waxam na muy def ba yore kër gi na muy def ba dépense am mu sàmm ka na muy def ba na muy def na muy def na muy def kooku politique la aussi donc Cheikh Laay euh, loolu la woon ñun nag tarbiya nañu lool ñun jigéen ñi parce que daf doon wax société jigéen a ko yor euh, jigéen a ko yor euh, ndax jigéen moo mën a baax rek gone ya mu amee baax te bu gone yi baaxee ñooy màgg jub te jubal